liggéey bi day ñu ngi ko door euh, sulet lañ koy wax de waaw ñaar fukk juróom-benn ci sulet lañ ko tàmbali boobaak léegi tamit ñu ngi ciy gis ay jéego ndax yi njëkk a tàmbali ñeent fukk juróom-benn yi ñu ngi koy raax ñeent fukk juróom yi ci topp yëkkati bi sotti na ñu ngi waajal aussi xadd bi yu mujj ñu ngi koy tàmbali moom it yaakaar nañ ni daal téeméer. ak fukk dinañ ko jox suñu clients yi encore une fois du jéggalu ci retard yi ñu am nga xam ne du ci suñu coobare mais ci tegtalu suñu kilifa yi ak seen taxawaay bu mat sëkk fii ak euh, ñuy feete suñu indépendance bëgg na joxe fukk téeméer ak fukk yi ci des topp ci lu ci mën di xew jàmm tamit amatul benn kër boo xam ne fas nañu yéene mu romb juróom-benn weer ginnaaw biñ ko dooree ndax bala ñu ko door la ñuy jël matuwaay yi ci war yëpp ci wàllu technique beeg xaalis beeg matériel bi ciy dem ak matuwaayu këyit yi. teew bi mosu teew bi yeexalul liggéey bi parce que man bi ma ñëwee toog fii lii ma njëkk a def. plan bi c'est un plan de masse validé par les services compétent mais maanaam ñi ci am dogal ñoo ko sàkku ñu ne dañoo war a bàyyi seq mbedd moomu fukki mètre ak juróom loolu def nañ ko man tamit bi ma ñëwee jël comico dama bind service boobu ñuy waxee DPC direction de la protection civile ministère intérieur lañ nekk ñoom lii aar nit ñi moo leen moo leen ñor ma wax leen ne leen nañ ñëw xoolaat ndax matuwaay yi ñu sasoon matale nañ ko ñëw nañ fi ba xool ko ba rafetlu ko donc kooku moom amatuñ ci benn kii du du jafe-jafe dara fi mu nekk nii kay xanaa ñaan yàlla rek mu sàmm ñu ba li ñu naal ñu mën koo weer. xam nga hectare bu nekk mën na def juróom fanweeri kër ak juróom léegi boo xoolee ñun lim ñu lim ñu tënk mais loolu aussi ci projet la bokk projet boo koy nas dafa am li ñuy tuddee li nga xamagul li la ump tubaab yi di ko wax divers et imprévu ci biir loolu. vraiment ñeen fukki kër ak ñaar yi kii loolu day duggaat ci biir projet bi parce que booy évaluer projet aussi doo ko tënk rek jatan ko ko daal di taxaw déedéet am na yoo xam da lay dab da ngay ñëw genn kër nga ko xalaatoon suuf si mel nii mu mel ne neen mais matuwaay yooyu xarañ-xarañ yi ñu am ak ñi ñu wër ñu mel ne architecte yi ñu mel ne banque yi caytu nañ ko ba li ci war yëpp matukaay yëpp jël nañ ko. am na këyit woo xam ne maanaam dañ koy tuddee laissez mbaa conformité. mooy wane ni sas yi ñu tegal matale nañ ko ñu koy wax certificat de conformité day wane ni jël nañ matuwaay ci ndox ci courant ci terrassement bi ak tamit ci bornage yi parce que borne yi dafa nekk lu am solo parce que xam nga borne boo ko randalee bu ko ab géomètre tegee nga randal ko déli la parce que géomètre dafa waat personne assermente la donc géomètre bi ñuy liggéeyal vraiment ñu koy gërëm encore une fois mook partenaire technique yëpp matuwaay yi ci waroon nekk yëpp jël nañ ko. xam nga kër yi moom ñun am nañ ci juróom-ñaar yu bokkul mi ngi wuutee ci dayo suuf si dañoo am cent cinquante mooy téeméer ak juróom fukk ñaar téeméer ak ñaar téeméer ak juróom fukk kër yi dina varier dina ci juróom-ñetti million jàpp fukk ak ñett fukk ak ñeent.